الله أكبر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 allahu akbar allahu akbar sami allahu liman rabbana walakal hamd allahu akbar أكبر الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الله الله أكبر الله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 والشمس وضهاها والقمر إذا تلاها والنهير إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طهاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال له رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقباها الله أكبر الله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 السلام عليكم أخزى وأساء قال الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وقال الله تبارك وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فطوبى لمن أخذ ما أتى به الرسول عليه بآله وصحبه سلام معطي السور وللذي همته ترتقي إلى الخير لا إلى الكدر والضير وويل لمن لم يأخذ ما أتى به المنتقى عليه بآله وصحبه سلام من جاد بانتقاء وأوصيكم أيها الإخوان ببت من كفاني ذوي الحسد والعدوان بأن لا تفارقوا ما اختير لكم أبدا فإن مفارقته تجر لكم ألما وكبدا wa anhaakum an fiili kulli maa lam yatabayan lakum kawnuhu sawaaba fa innahu mimma yuwajjihu ilaa gayrikum al ajra walridaa walsawaaba wala tatlubu alkarama bigayri taqwa fa inna alkarama huwa taqwa wala tatlubu alizzata min gayri alasiisi almuizz bijaahi abdihi nabiyihi rasulihi al aazz فإن من أدبر عن الله تبارك وتعالى إلى سواه تركه مع نفسه وهواه ومن أقبل إلى الله تبارك وتعالى مع الوسيلة قاد إليه كل ما كان يرتقي إليه من الجميلة يا أيها الناس اعبدوا ربكم اتق الله حيث كنت من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت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 الحمد لله الذي جعل يوم العيد يوم التوسعة والتفريح والإطلاق والصلاة والسلام على من أخرجنا من ظلمة الجهل والشرك والنفاق والإملاق سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه ذوي الوفاق وعلى من تبعهم بإحسان في جملة الآفاق أما بعد فهذا اليوم يوم مبارك ولنا فيه شيء فيه لم نشارك فأحمد الله تبارك وتعالى على ما جاد به فيه للمنتقى عليه سلاماه بجميع مقتفيه فإن هذا اليوم يوم أكل وشرب وعتق بفضل من جاد بفتق الرتق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 وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظل mbokki jullit yi ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaara di leen ndokkeel di leen jéggul tooñ bu fës ak bu fësul gun yëg ak gun yëgul ci bu tedd bii xaasatan ak ci fukki fan yu tedd yii amatan nga xam ne dees ci ful yoolu jëf ju baax laa qadarallah ñu ciy fulit bàkkaaru safaan ak mbugal ca baaxoo am bu àndul ak njéggal yàlla na jullit yépp am am njégal amul nag jenn jëf ju baax ju ab jaam mën a jëf ak lum rëy rëy te yàlla farataalu ko ci moom man caa amee lu toll ne li ku tabaski mën a amee ci tabaskiyam bu ko yàlla nangoo ci tuyaaba ak donte ne dafa tabaski tabaski ma gën a suufe daraja ci luñ mën a tabaski te fekk nag loola la am te mu yéene itam la gën a mat ak noonte ne itam ki tabaski wul daa jëf-jëf ja gën a rëy ci lu jaam mën a coobarewu jëf ko ki jëf-jëf ju rëy ji bu tabaskee ne moom nag te moom it yéeneem sell yàlla rekk tax nga niilul yàlla daal di ñëw nag mu war a nangu dogalu yàlla dalika fadlullahi yutihi man yashaa wallahu dul fadlil azim yàlla dara waru ko ci kenn wala lenn kon sañ naa gën a def la ko soob te moom rekk moo jagoo lu mu bëgg a def man te du diisoo ak kenn faalu li ma yurid yafalu ma yashaa wa huwa ala kulli shay'in qadir yonente yi mu tànn ci nit ñi sax yemalewu leen juróom yem ca tànnaa nit yemalewu leen tilka rusulu faddalna baadahum ala baad wali yi noonu malaaka yi noonu laneen it noonu rek lay demee kon ku mën a tabaski ak tabaskiyam ci bis bii na xam ne dara mënu ko wecc maa amila aadamiyun min amalin yowma annahri ahaba ila allahi min ihraaqi dam innaha la taati yowma alqiyaamati bi quruniha wa ashcaariha wa arlaafiha وإن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسا li mu koy mën ci xar mooy mu am at bu jàppandul mu am fukki weer juróom-ñetti weer ba ci juróom-benn weer lu néew néew bu dee ci bay mooy wu dugg ci ñaareelu at nag bu dugg ñetteel bu duggee ñeenteel gënati gëléem gu dugg juróomeel bu duggee juróom-benneel gënati lu ci mën di doon it bu mu am yenn ayib ju fees di bokk ca ñeent ayib ya ca xadiisu albara ubnu azib bu mu am it ayib ju yem ci ñoom ayib wax nopp ñeent ya ñooy soox pat wopp yooy bu mu cee ci ayib nag ju fees ak ju muxtaar maa ngoogu bu ci boolee am béjjën jaxase weex ak te ñuul ñuul ya bañ génn la war bët ya la war ga biir ba tànk ya daal nekk tànneefu tànneef ni ki mu dikk ci xadiisu sayida Aïcha ba te mu indiloo ko ci paaka bu mag daasloo ko ko ciw doj ca mujj mu ñaan yàlla nangul ko moo waa këram te ñooy ahlu kisaa am na ñu ko yaatal def leen juróom-benn am ñu ko yaatal def leen fukk ñaar am ñu ne ku bokk ci bani hasim rek te gëm ko ci la am sax ñu weesu loolu waaye da lu lu mu gën a néew rek la la wax ci di gën a maan yenn maanaam ndax day laaj ku ci bokk ku ne sell gu mat sëkk mu teg ca ñaan yàlla mu nangul xeetam bu عن عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد فأتي به ليضحي به فقال لها يا عائشة هلم الوديا ثم قال اشحذيها بحجر ففعلت ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى به mu war nag képp ku ko man tey asgar bi ab jullit moo xam mag la wala ndaw góor la wala jigéen ku nekk fi mu dëkk la wala ku nekk ci tukki te du aj fii ba sabar di jot fi la def gi gëne ku jàppandoo ci moom fii ba jant bi so gannaaw ëllëg fu ko def fu ko fi defee te du génn te guddi baaxul def gi lu gën a jege yor yoru tey bi ci lay gëne ba mu des ëllëg ca gannaaw tisbaar bu boobaa ba yor yoru gannaaw ëllëg la gën a taamu ci waxtu woowu ak doonte ne moo gën a sori tënkoon ci bis bi dundal ci sunas ku tedd ki sallallahu alayhi wa alihi ni ko yenn waroon xam-xam waxe te mooy fàttali xamle lu aju ci tabaski bu dee koor fàttali xamle lu aju ci mbirum koor ndax du ñàkk ñu fàtte du ñàkk ñu jutul a xam sax bay fàtte te mooy royukaay bi ci lépp lu mu daa def te jegoowu ko moom képp yàlla na yàlla nangul gi ak ya ko jëkk ak jaamu yàlla yépp rek te yàggal fi suñ kilifa gi yàggal mu it ci gannaawam te may nu wér ñun ñëpp may nu njub léegi ñu jox kilifa gi kàddu